yem ci yeewu leen tey bi 11h13 mooy doog a Amina Poté mi ngi ci ginnaaw ah Amina Poté nee naa moom mooy euh, soleil yu. Ah, suñu Beyoncé tey e la ñu jural ah. Amina Amina j'ai envie que tu me fasses un bisou. oh my God est-ce que est oh là li oh, déggal li waa ñëwee nii. par ici ba papa Mamadou Ndiaye. <laughs> Mamadou Mamadou dégg nga. non ah. geste barrière geste barrière. kii moom dafa firnde bonjour. bonjour Beyoncé bonjour. ñan ak ñan nga nuyu. Coro ah. <laughs> ah, gis nga li mais bii ni baax na ci yow. pour mais dinaa jeex rek. déedéet pour les belles pour de belles rondeurs africaines. ah. non moom na jël petit déjeuner ba pare <laughs> yow jëlal petit déjeuner <laughs> céréales waaw diis naa ba pare dina la jeexal ko Kiara Kiara ci <laughs> léegi lii waaw dama koy naanal kii ku bees ki ma am rek. kat la. ñi ma bàyyee xam nga boo bàyyee. waaw xam nga jigéen bu baree ful la. waaw ñàkkee day wuti. dëgg la man du ma galéré aw ay. doo chômer doo chômer ah déedéet. déedéet comme banaa. waaw damay wut. jeex na mais kan moo ñu <laughs> on te on va te tout de suite. <laughs> on va te tout de suite Amina nu muy joxe. waaw waaw waaw waaw Amina. <laughs> boo ko amoon nag mu inscrire ci sa lii ngay def nii bës ngay am tamit Amina rek macha allah ah déedéet. Ali lala ah, yee lii rafet na. di téemaa woote. Ah, ah, waaw man téemaa woote. tey looyu lii la lépp bees man de maa woote ne jotali ko a ba non nee na man ne touche pas damay. rek ndax yow yaa ah man te maa woote. yéen xoolal lii. ah ma sol ko nii ah, kii dama koy ñëw solal sama orange bi sax. ñu tuddee ko ah. la Amina. mais yow nii rafet na di. c'est très joli ba pare c'est original quoi. c'est Prada waaw man tey maa woote. woote leen numéro yi dinañ ko affiché ci ginnaaw. sac bi rafet na de. Oh, trop ah, c'est très très très beau. très beau